mooy sa waay kii nu muy def nii dugal soixante dix neuf mille oh saa tey du leer rek tey général général eh. muy sa mën day. eh yow waxal tekki sa yi te nga déglu. ah balaa ma ne yàqu toog trop yow nag nga chargé ma gaz bi. jëlal gaz bi nga dem nga chargé yaa réew de. yow man nijaay amul dara nga yabaate da nga ma nga chargé laay gaz. nijaay nijaay. yu baax ko ma bopp de. lu xew. ah lu général mu naan da ngaa réew. lu général nee na loo ko wax da ngaa réew. na ma ko xooloon di ko chargé loolu gaz. ki xamul boppam de. Ah! nag man moom moromam général mi boo ko xoolee ci kër gi di ko chargé loolu gaz kët. dégg nga li ma la wax. waaye général ak coppiku da cee am dégg lu mu la ba tey lu ne mën naa ne loo xalaat rek mën naa ne waaye sénéral moo woon daal mu du mii mu. ba ma diw ren ji sa tabaski neex du ko def sa tabaski ren neex du ko def. sama tabaski Ndiaye Ndiaye ma ñëw. waaw ah, demal demal bul yàgg bul yàgg nag dem ñëw sa morom nga xam ko nag. dem ñëw da ngaa réew. bal wa ah réew yabaat. waaye général moo du muy dellu xam ni ngay waxee gone gi. changement kër ngi ci loxo général bi. waaw waaw Ndiaye yow. waaw mbaa du 400 mille yi nga ma digoon. ci kii nga koy naa ne daal loo xalaat ci tabaski gi ren gi rek mën naa ne. waaw général la bis nag tey neexal di neeng neengal. neexaluma ah léegi loo bëggoon charge bi gas. charge bi gas bi yow. Ah, loolu problème une ana un mille xam naa ne na waaw beeg bi nag moom beeg nag ah ah yaa as màggal bës bi jaadu def sanse ziyaare ji seeti samay nit ñu baax xol yi dafa neex bal ma àq bal ma

sëñ Diop bàyyil soxor. Ah, baax na sax yow sax Adja ma bàyyil soxor. man lan laa sa kaala ngay mel ni ku kuréel ci ci ci boobu. soxor doo nga la jàpp sa mbaxana bu weng. léegi sax maanaam jot la amul man damay ci biir laa jëm looy soxna dañuy fi nettal lam sol daa gàtt day seer heure bi kenn du ko dox ci mbaar mi laay toog ma la de ci mbaar mi laay toog uy ma ah bul sori de bul sori de nii la ngeen def wër ci jabar jaamu di wóolu ma dara xaj nga rek bi bës bi yegg si naa ma ñawlu sama yére bu cher ànd ak sama alaaji as màggal bës bi jaadu naa def sañ see ziyaare ji seeti samay nit ñu baax xol yi